dalen ak jamm mbokk internet yi seen football TV nuyu naa leen bu baax si yaax leen di am mbégte saa su defal leen vidéo kooku ngeen gis si vidéo bi si Aliou Badara Mané temps yëpp yéen a ngi ma koy laaj yéen moom xam naa ne fii ngeen soxla information Aliou Badara moom seen football TV ngeen si yaakaar quoi donc moom aussi tamit yombal na ma liggéey bi lépp lu ma bëgg a xam ci moom aussi dafa ma koy yombalal donc ma koy remercier de passage donc ni ngeen gisee nii voilà jël na fi trophée si diggante bi lépp dina leen ko expliquer andi leen eh, eh, vidéo mais pour ñu ne man ban niveau la nekk moom équipe boobu moo nekk Liga B maanaam deuxième division Espagne mais moom fële lay jouer là est la question xam nga Espagne dafa am liga euh, bi ngeen xam mooy ñoom Real Barça fi nekk am liga B léegi nag dafa am yeneen catégorie dafa am yeneen deux deux niveaux réserve dafa am tout bu ñu waxee liga A B am na nag beneen division division boobu si ñu ngi ko première effraie B moom nag dafa am B am tamit deuxième division am troisième division ñoom ñu ngi nekk comme troisième division maanaam seen liga B fi waa waa Barça waa Real ak seen seen équipe B fi nekk. ñom 3 lañ ci nekkoon sen équipe 3 troisième division la nekkoon yéeg 2 deuxième division mais mom équipe bi en tant que tel manam équipe bi en tant que tel mo ngi liga bi manam ça veut dire que bu tojee réserve man mën yegg ci si première équipe bi jouer liga bi ay jéem pourquoi pas dem liga liga bu mag bi donc loolu pour ngeen xam ko moo tax mu jël trophée bobu ngeen gis donc tey jii euh, ñoom dañoo 2 euh, deuxième division si lii laa ko mën si réservé yi noonu laa ko mën a expliquer pour de manière générale yi mën a xam réellement fan la nekk mais nag équipe A bi mën na ñëw gis ay prestation mu intéressé ñu jël ko andi ko mu jouer Liga B te ku jouer Liga B c'est équivalent à Ligue Ligue française wala championship donc boobaa mën na prétendre équipe nationale du Sénégal donc vidéo bi dañ koy def andil leen vidéo am li mu jot a def si ay prestation Nicky A so killer. Killer. someone to ham gako When I send town, yeah, girl, send nivo Kilo back, back, rabu best dog biro Fiken du jalle kon mat ak biro Atmosphère, yep, like kale May son pale, disere son bel san xale concert door pale, jale door are Ñu so xam ne fils may xareñ Fils dama osé fu nekk lay fële Mais kenn du tagale, lemin jaat ak pële Sama son lay waxe, never na xe Je wàcce fës kene ma xe Yaa ñu so ru, ñoo la gaañee

bu leen fàtte di abonné ak di cliquer ci cloche boobu ngeen di gis vidéo bu ñëw ngeen mën ko seetaan jërëjëf ba beneen